internet di bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan tey ñëw fii ah seen émission seeti mbër seet si xale boo xam si ni ah làmb da koy xel bëri fi nag ay combat ñaar yoo xam si ni ay combat yu am cooloon danañ ci ñëw waaye dañu waxtaan moom ci wàllu mbapat ak lan moo moo ko boole ak làmb muy caatu Mbombay SBT ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. maa ngi mbokk internet maa lay béy di bëggee mbokk internet TV yëpp maa leen di siyaar bu baax xam nga di nuyu axlu làmb yëpp bàyyi woon kenn di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp waaw di santaal bu baax nag sant sama yaay bu baax di gërëm sama papa bu baax baax bi sama gars yi ne si marché Tilène bi yëpp ma leen di siyaar bu baax a baax. ginnaaw bi nga xam si ni nuyoo nga tey ñi nga xam ne miinuñu la te di la seetaan tey à travers SBT Média boo doon wax Thiatou Mbombay lan moo ko booleeg lamb ak kan mooy Thiatou Mbombay. Thiatou Mbombay benn xale rek buy dëkk Mbombay dëkk Bawal xam bëgg làmb nag waaw amul mag buy amul mag buy bëre mais tuuti la def si làmb rek bàyyi quoi mais amul yaayu da ko gis mu neex ko làmb mu neex ko mu dugg si xam nga di ci bay waaram nag waaw commencé ci mbapat commencé mbombay mbombay laa njëkk a bëree jóge fa bëree fi ma bëgg ñëw si mooy ginnaaw bi nga xamante ni euh, dugg nga ci làmb mais avant làmb ji bi nga nekkee xale ba ñu doon wax sa passé tuuti si wàllu xale est-ce que Thiatou jàng na école. papa Mbombay jàng def na école. waaw classe su nantay rek waaw classe su nantay lay yem. liir yaa ngi bind. waaw maa ngi liir maa ngi bind nag nice waaw. damay liir ah, message mën nga ko liir sa bopp. si waaw dama koy liir nice waaw. dama koy liir bu baax de. mën ngaa français. oui damay parler français nice oui. boo doon wax ñi nga xam ne ñu ngi seetaan SBT Média seen émission seeti mbër nga wax ko en français nuyu sa supporter rek yooyu lan lay doon. waaw ah, mais di bëggee rek di saluer mes supporters et vous remercier tout tous mes supporters tous mes fans tout tout tout parti bëggee caatu Mbombay rek maa lay bëggee. ginnaaw bi nga xam ne si njàngum français mu sori woo est-ce que Thiarou Mboy Mboy sori na ci alxuraan. non alxuraan nag jànguma ko quoi jànguma alxuraan. dara jànguma benn alxuraan. benn saar. am na ma si ah. na bëri <laughs> bi nga xam ne si njàngum alxuraan mi sori ci njàngum français mi sori ci est-ce que nag def naa métier lu yàgg mécanicien. oto wala moto. mécanicien oto def naa ko ay at ah, yu yàgg sama boo moom laa ko def. oto bu ndaw wala oto bu bu ndaw bu ndaw daaw laa bàyyi ma bàyyi léegi ay def at rek la def. ba pare bàyyi mais xam rek mooy loolu métier bi yàgg naa si trop def naa si trop yàgg naa def naa si près de ay ans def naa ko métier. defar oto. bu baax sax am naa lu bari sax. bilaahi oto moom xam naa si lu bari li ñu naan jinax day bëri pax. ginnaaw bi nga bàyyee métier mécanicien bi après ban métier ngay defaat bu bokkul ak laaw. defaat ma beneen métier xanaa jaay bi laay defaat quoi. commerce ngay def quoi. commerce laa def quoi. man damay jaay ay damay jaay ay ay tel gazon ay val ay tout daal yu bëri waaw. ne commerce bi moo gën a gaaw euh, mécanicien bi quoi. pas loolu sax ay na mécanicien bi foofu la ko yàlla tuddee woon quoi foofu la doon jeexe def naa sama carrière quoi maa téye sama métier du ma réer quoi. Ousseyn Samb fu ma mën dem itam mën na maa téye sama métier xam nga loolu mooy njëriñu métier jàng métier dafa baax quoi. nga tàmbalee yi nga xam ne ñu ngi toll muy wàllum alxuraan wala wàllum français ban message nga leen lancé parce que am nga loo ci rëcc. waaw dama ne di lancé nag ñu jàng xale day jàng quoi soo tolloo si jàng jàngal soo tolloo si bàyyi rek di nga bàyyi waaw mais soo tolloo si jàng da nga war a jàng parce que jàng moo yor avenir xale daal xale dafa a mais wéy booy laa jàng mi neexuma rek dama koy bàyyi non non da nga war a jàng ba am xam-xam sooy bàyyi nga bàyyi su fekkee da nga ciy réussir it nga ma yàlla doxal la nga réussir si quoi loolu laa laa am ma leen siy lancé di leen wax ñu jàpp seen jàng parce que jàng ku ko bàyyi da nga koy rëccu ñun ñu ko bàyyi sax rëccu nañ ko parce que ko bàyyi même pas du yàgg dara da ngay toog naan su ma xamul ma baay sama jàng mais nag boo si nekkee doo ko mën a comprendre quoi fekk bàyyi woo ko mais ñun ñu jot a bàyyi genre dañu rëccu suñu jàng bu baax dañ koy rëccu bu ñu xamul dañuy jàng ba nekk leneen ak leneen parce que tey ku fi am benn niveau bi jàng moo la ko may kon nag jàppaat jàng bu baax a baax ma nga wax xale yi ñu jàng ma loolaa leen ma di lancé te jàng am na njëriñ trop ci doomu aadama SBT Média la seen émission seetu mbër abonné leen ba seen tous cloche notification bu ko defee vidéo ngi ah, xam a si ni sa mbokk mbëri parce que gis nga ba corona duggee parce que léegi mu def un parce que période bii nii la woon corona bi tey ñu ngi ñëwaat ci période bi corona ñëwoon parce que mu def un an booba léegi làmb amul dara amul sa mbokk mbër yi nga xam ne amuñu métier ban message nga leen lancé waaw mais leen wax ne dañoo war am métier mbër day am métier mbër wax di liggéey man gëmuma ñàkkal liggéey mbër bu si toog sa koñ <laughs> liggéeyoo da am problème <coughs> parce que mënoo di ñaan lekk di ñaan naan xam nga loolu dafa metti man rus naa sax dem si doomu aadama di ko ñaan barke Seydina Mohamed damay am combat am problème mu ñaan bilaay walaay du ma dem si kenn di ko ñaan soo ma jàppalee boo ma joxee ma jël xam nga mais mbëri dañoo war a jàng dañoo war a liggéey si toog liggéey yaa ngi per parce que da nga da nga yor yaay nga yor papa te dañ lay toog di la xam nga am lu ñu yaakaar si si lamb fayagu la lamb léegi mooy lool xaalis yomb si tur lañ si yut nii rek ak bëgg-bëgg moo ñu ci bàyyi mais du xaalis xam am foo si tollu am la war a bay si biir lamb ji mais du caa gën xaalis moo si dugal bu doon xaalis ak xaalis dugg si lamb lamb amul xaalis instant bi nii ñu ci am xaalis am nañ ci xaalis bu yàgg mais instant ñun booy nii ku ci nekk fongal sa liggéey si heure entraînement jotee nga bàyyi ko nga dem entraînement xam nga ñëw continuer sa job boo amee combat nga toog li ngay toog xam nga pose ko xam nga entraîner su combat jàll nga continuer sa liggéey mbër mu si amul métier dangay am problème parce que Seydina ma nañ dem ñu liggéey man fii laay dóore waar xam nga marché tëleen bi laay dóore waar yoo xam naa bu ñu amee xew il faut ñu woola nga nga réglé leen yenn yenn yenn tisi waaw waaw waaw loolu du mën a ñaak lool du mën a ñaak waaw mbër mu sam xew gay gaan ñëwal rek xam nga nga pare ñu lijjanti la otes yeeg yëpp sa xew neex waaw yaa ma gën a xam SBT Média seen émission seeti ñu génn foofu ñëw ci ñëw ci làmb ji euh, ban année nga njëkk a takk ngemb man 2000 2015 euh, laa njëkk a bëree takk ngemb waaw mbaba mbomboy waaw kan man benn booy bu ñu am maalaw deux waaw. wala dañ laa non waaw mais sama gaan la léegi quoi ñooy ànd ñoo bokk mbomboy bi quoi lépp si mbomboy bi la woon mais xam rek jamono xale yaa ma gën a xam waaw temps booy na mais par bëri dóor laa ko doon defee nag. si beneen dëkk ay ñaari combat na bëri na ay ay plus ay quatre combats xaw ma cinq ans ah. waaw bëri mbapat de. combat nome combat nome ko ñàkk. lan leen daan bëri dóor. mooy bëri ba léegi mosuma laal sama ngeen mosul laal suuf maa ñaan yàlla nag mu yokku depuis mbapat ba léegi. kan nga daan koo xam si ni làmb xam na leen. am na ñu bëreen mbapat nekk presque na kenn bëreegu si arène quoi yaa kenn bëreegu si arène. ci euh, li wax ay tournoi. tournoi. bëri nga tournoi. ay mbapat waa benn yoon bëri naa mbapat àll bi nag ay fii côté jaxaw bi noonu. waaw di nuyu au passage sama benn boy bi ne fa Modou xam nga koy bégg bu alsaan xam dañu demoon benn xel comme lañ daje woon nii comme nii rek ñu xamante foofu mënoo suñu dëkk day am ay làmb xam nga ma ma quitté fii di dem foofu noonu di bëri jaay mbapat bëri dóor lay doon nag waaw tournoi lay doon benn catégorie foofu noonu dama fay dem mbapat lu bëri. ma la génne. juróom nag ki ma génne xaw ma ko foofu de mais nag champion. génne demi finale wala quart. ay ay quatrième tour ah, la génne. parce que benn catégorie lay doon lay doon ay plus de 100 mbër waaw. SBT Média seen émission seeti mbër wax naa leen ne SBT ah fi la mburu mi tàngee fi lay xam xamee euh, mais Thiatou Mbaye léegi ñu génn si euh, mbafat bi ñëw ci mbàccum gerte mi si premier combat arène yow kan la. sama premier combat man ak Siteu la Siteu bu Ngor. Siteu seen cooli seen combat bi cooli bëri woon la moo la moo tension bi te yow nga nekk fii moom mu nekk moom mu nekk. Siteu moom mburu waxkat la. Siteu moom buru waxat la dañ koy bàyyi wax ji rek par maa sitaan interview am yu bëri xam nga mu naan dafa daan caatu mbomboy dafa daan caatu mbomboy xam nga su ma daanoon damay nangu ne dafa ma daan quoi mais dañu bëree ba temps bi jeex te deful benn action boo xam ne nii lu may daan la la fa am yëpp maa ko bëree parce que Seydina Mohamed su la neexee moom mën na seentaan interview bi lu fa am maa ko fa def ba ni làmb ji jeex bëreewul benn yoon mais damay dégg lu bëri bëri muy toog naan ay dama daan caatu mbomboy maa ngi ci deux combats deux victoires loolu amul sens dama daf ay combat combat xam nga mbëri ñuy wax dëgg quoi boo amee temps de combat nga ne temps de combat am temps de combat daan dañ ma daan. combat yow Siteu ci biir ci biir waxante yi ginnaaw bi seen combat signature yi tàng waxante yi tàng ah, nga ñëw ci biir stade bi biir stade bi euh, première daje bi ngeen daje yéen dañoo daje après mu xam muy def affaire de yooyu rek yaa ma gën a xam xam nga ruube daw yëngal affaire yooyu noonu après mu bëgg ko topp si rythme bi quoi sama gars yi ma àndal xam nga ñoom Cheikh Diaw xam nga ñoom ñoom Cheikh bop xam nga gars yi ne ma bàyyi koog bàyyi koog bàyyi ambiance bi quoi parce que moom mbëru ambiance la après ma bàyyi koog ambiance bi concentré aussi làmb ji muy def kërëng kërëng affaire yooyu noon mooy lool xam nga sama gars yi ne ma bàyyil noonu rek jarul nga koy topp si ambiance bi parce que moom mbëru mbëru mbëru public la quoi léegi ma bàyyi koog ambiance bi. daa mobilisé de. waaw si même man dama de dama mobilier lu fees dell parce que Seydina Mohamed promoteur li fay lu ko double laa ko jaayal bi ànd ak sama mafia bi 444 bi 444 bi lu leer laa lay tegal nii. suñu déggee ay 444 personnes dugg lu ko ëpp. mafia bi rek mafia bi rek 444. mafia bi rek ëpp nañ loolu dañ ko dañ ko dañ ko kale foofu. à part suñ président bi xam nga sëñ Cheikh maa ngi ko bu baax xam nga ay ñoom xam ñoom sëñ ñoom xalifa ñoom laay xam nga yu ñoom ñunguli sama doom day ñoom Abdou Ngom ñoom rajaxe duma leen mën a bàyyi yaa ma gën a xam mafia bi dafa yaatu ñoom Sam Baba gaa ñu ngi si ñoom jazz maa leen di bëggee bu baax xam nga mafia bi instant mooy loolu day gën a dëgër gën a booloo gën a yëngal rek. war arbitre bi sifflé na. waaw ñu léewtoo ma xam ne kii ñëwul pour taxaw ma gëdd ko deux fois mu def latéral gauche droite ma xam ne kii ñëwul pour bëre quoi dafa ñëw pour ut lu mu am rek sàcc mu topp ko topp ko topp ko muy daw di def gauche droite combat bi yëpp gauche droite la ko def taxawal ba léegi. combat bi muy sama téléphone su la neexee mën naa la ko envoyé. biir bi nga àgg ko fu sore sore sore sore bañ ne combat bi jeex mu génn. waaw si ko fu sore sore mais man ak Siteu ma leeral la benn affaire bu ndaw man su fekkoon man keneen laa du ma bëre si. wallaahi al azim yàlla moom. moo tax li nga wax nii garaaw na de. parce que parce que bi une semaine de korité la dama doon woor di entraîner yaa ngi dégg de lendemain korité la feebar feebar bu metti ba sama yaay lii da ngeen ko bàyyi leen ko non sama benn commune zal ki yor sama cumikaay na ko yaay lii lu dara xam nga lii du dara day wér léegi nii moom mu jàpp na leneen la waa dara léegi ma leen garaawul du ma dem hôpital su ma dem hôpital du ma bëri ji dem bëri ji garaawul gars yi bi mooy loolu leen am problème lii bu ratee mooy loolu dañ koy ñàkk ba ñu dem bëri ji rek lu ñu am ñu xam ne loolu la ñu am barke Seydina Mohamed billaay walaay. waaw yéen ñaar euh, keroog euh, maanaam xeex bi privilégié wu ngeen xeex bi ngeen ñëw ngeen ñëw yéen ñaar ngeen bappat ngeen bëri. non dañu xeex Siteu Siteu dañoo xeex lu yàgg Siteu dañoo xeex lu yàgg laa la. ngeen gënoon bëgg. jàppante bi waaw si mais nangul taxaw jàppante Siteu ba léegi nangul taxaw jàppante song yëpp maa song mosuma song si song naa ko trois fois presque yoo xam ne nii benn song ma benn ci ginnaaw saako presque ci saako yi laa ko songee mu daw génn. ay trois fois yoo xam ne man maa koy song Siteu du song. ñaata avertissement dem nañ ba mu am dañu dem def 4-4 après ñu songoo mooy buux léegi ma résister taxaw mu buux buux ba son mënu ma déplacé wu. te arbitre soufflé xam nga ñu yëkkati su loxo mu mat si mat niil mat si niil waaw. moo tax euh, moom mu ne dafa daan kon. ah moom moo xam fi mu ko teg moom def na verdict amul. lan lan moo tax mu def dafa la daan ci biir. dama daanoon dafa jàpp ne dama def quatre appuis quoi bi koy song dafa jàpp ne def quatre appuis am bi def recours wax na ko suñu benn côté Sadiaw ne ko booy bu yàq sa xaalis mais ko defaatee woo na ko ne ko non xam affaire bi mujjul sotti quoi boo xam yooyu rek mooy lool mais si moom du sax làmb barke Seydina Muhammad. yàlla sampi wala nag. bilaa na boo ñu dóoroon. non c'était boo ñu dóoroon si tali bi koy daan bu bët set wër na alxuraan billaay walaay bokkuñu sax la yoon maa ko bu doole foofu bokkuñu. ginnaaw bu Ndar nga Ngor nga ñibbisi noo ko dundee yaa ngi mafia. waaw mais mafia bi man dafa ma metti après gars yi ne parce que ñoom xam na si li ma jógee ñu ne ma yow jàmbaar nga après ma ma affaire metti ma trop sama combat man cité comme ay ma bëri yëpp boobu moo si gën a metti parce que dama xam du làmb mujj demee noonu man cité du làmb barki Serigne Sall bokkuñu yoon. billaay la de bërikat la de. yàlla xam na ne bokkuñu yoon. borom ngor de. si neexul xon boo ko xontee sax doo am doole. lu leer laa lay wax. boo ko gis de jamono yi ngeen bëree bëri ak léegi de. xale bi jar la ah, du doo am doole. maa def jar. si am doole. Ah? si ta du màgg. si ta du màgg. ginnaaw bi ci sa diggante si ta après ñu jox la kan. après ñu jox ma Pape Thiam Pape Thiam bu géej waaye lañ ma joxaat. kalaaf la woon sax. kalaaf la woon quatre mbër la woon. ñu ngi defoon benn tournoi. falo kii moo ko tegoon Assane Ndiaye. man la woon Pape Thiam xama ak Boy Diouf ak kii bu parcelle waaye mooy fàtte turam écrit ñoom franc la nekk waaw après léegi ñu dawal dawal ba mu des ay presque ay 15 jours après kenn ki blessé léegi bi blessé am problème genou quoi léegi beneen booy remplacé ko ndongolo moom moo ko remplacé woon ci classe bi mais après biñ ñëwee ñëw biñ bëree ba pare la gars tas classe bi. lan nan ngeen bëree ba arbitre bi Pape Thiam daal dama cee pare rek dama cee pare ak maag samay mbokk di san mbay xam mbay mooy sama lépp kooku mooy sama le mbay. ban Pape Thiam la yow ban Pape Thiam nga daal. Thiam numéro 2. ñoom marale Pape Thiam Pape Thiam 2. mu ñoom marale waaw xam nga kooku laa bëre waatal xam nga ñëw waaj ko ñëw dugg si stade xam nga mu liggéey xam nga ànd ak samay mbokk ma ànd ak samay mbokk mais combat boobu mënu man ñàkk quoi waaw parce que retour bi la daam lu ma doon lu ma doon wane leen lii xam nga li fi jaaroon man ak Siteu daam nu demee quoi. sa diggante Pape Thiam. waaw bi suuf la sama diggante ak Pape moo di xeex bi ma nee ma woo ko ci xeex bi xam nga mu yaakaar ne damay xeex mu gëdd ma deux fois ma arrière bi ma gëddaatee laa daw coppati tànk bi ma coppatee tànk bi mu yaakaar ne damay jàll ma takk ma takk ko ndigli yenu ko sa première victoire ginnaaw bi nga defee machine sa diggante ak Siteu keroog bi nga ñibbisee noo ko dundee ak waa Rëbës. waaw ah, mais bégee rek xam nga su comme am nag bala au passage maa ngi koy nuyu sama coach bala bala Diop xam nga séeri bu ndaw maa koy bégee bu baax a baax xam nga su dafa ma see liggéey loolu metti jaa jàppe ma bi xam nga di ba liggéey loolu metti parce que Serigne Bamba gaa yi ñu ñëw sax na ko booy li koy teg dafa diis xam nga mu mën na ko teg ma loo ma teg baax na xale la man entraîné rek moo ma ñor daan rek laa bëgg mu ne ma ci kàttan yàlla da daan liggéey ma liggéey mu ne ma foo ko jàppee day jeex parce que Bamba bu ko jàppee daa jeex. nuyu na kenn koo xam si mënu ma ñëw ah écrire ba te nuyu ma ko muy baa bu double moteur ah sama doom nday ah, nit baax macha allah di ko nuyu baax baax waaye di nuyu nag Cheikh ndax ñoom gis naa SBTR dañ koy bëggee bu baax baax baax di nuyu champion yi nekk uh, rëbës yëpp ah, ah bu baax baax mais ginnaaw bi nga jógee si Pape Thiam est ce que promoteur ñu waa si promoteur yi woon ma parce que gii nii ñu tudd Modou Anta am na benn kii promoteur bu muy àndal woon nañ ma temps bi la quoi ab léegi sama gars yi xam ñoom Seydou Diaw ñoom Mbaye xam nga ne ma instant bi boo mooy loolu doo xam kañ ngay bëree xam nga mën nga jël avance su mu yóbbu la foo xam ne mooy loolu nga entraîné jëmale déwén bàyyil ba lema ji tijji nga di nga teel a bëree mais bu doon loolu bu yàgg. kan. non am na ñu ma doon proposé ñu ma doon ay Pape Thiam ay Fëgala bu Ngor xam nga ay ñoom Aliou. ñeme ngaa génn ñeme ngaa génn Ngor. leer laa la fëgal bu ngoor ma bëgg a bëreeg parce que moo ne woon sita ma gisoon mu sonn ji moo ma bëgg a bëreeg moom. ko kàkk la de. bon du dara kii benn booy lañ ko fi jox muy xànji ñemewu ko sax rakku guy gi bi xaw ma nan bu guy gi. gisoo ni mu ni mu de Pape Thia kii Pam Ndoye numéro 2 gisoo ni mu ko def. moom Pam Ndoye gis nga moom laa jour maa ngi sat. dóor ko ban for ko. ñemewu ko sax barki yàlla ñemewu ko moom ñooñu ay tapet lañ yow. Eh. bu ko ñemoon rek xam naa li ma la wax moo fa di yoot barke yàlla ñemewu ko kot bi naan ko dalal ci kaw muy tapet. fëgale kon su ma la déggee pare. pare naa pour bu ngor lu leer laa lay wax. loo ko xool ko. fëgale bu ngor jëlal sama avance. bu jëlul. su ko jëlul da ngaa tapet. Caatu Mbomoy moo la wax lii jëlal combat bi amul ruux. seeti ko seeti ko ngor mu ne ma ngor amu tapet. bëri na su jëlul combat bi tapet. na tapet ngor rey tapet lañ booy dañuy waaxu nii rek di la jéem a joo affaire mafia ñu gëmuñ yooyu. ñun suñu fit dañ ko juddwaale mbooloo may ñu ko bañ nekkee booy bu ndaw la ñuy bëre door war na Serigne Saliou fëgale bu ngor loo gëm la wala da ko wax ni rek pour pour bégaloo ko supporter fëgale bu ngor bokkuñ saa yoon maa ko dàq bëree barki Seydina Amad bëreegu ma man damaa bëgg a bëree mais ba léegi bëreegu ma quoi à part fëgale bu ngor à part fëgale bu ngor xam nga ay ay papa Sambène papa Sambène pare naa milk zoo pare naa pour moom tànga na tar mbambay yaa ngi ne nii yaa bu ngor pare nga ne papa Sambène ñu nga ne milk zoo Milkzo pare na pour moom man damaa bëgg a bëri moom Milkzo Aliou Fatfat booy nañ ñëw. dégg nga bëgg a jël sa si teg diggante diggante diggante Kër Massar ak ak benn baraak. pare na pour ñooñu damaa war a bëri ñoom lu leer laa lay wax ku ma si jàpp dama lay yenu lu leer laa lay wax. adversaire yi nga bëgg actuellement nii muy Feugeleu bu Ngor ak ak Milkzo far naa ci bu bëgg seen combat a na digganteem ak bu Ngor. muy ñaar adversaire yoo xam ne bëgg nga leen te ñoom seen combat taxul kon dafa mel ni tournoi nga bëgg a def waaw mën na nekk tournoi parce que ma tournoi dugg naa si tournoi ba ma bëree dañoo tas tournoi bi barki yàlla seen ménageur ñëpp ñëw ne booy booy bi duñ bëree suñ booy tas ko tas affaire bi lu leer laa lay wax ñoom ñëpp dañoo tas affaire bi waaw affaire yi duy caaxaan de ñu duñu liggéey de xale yu ndaw lañ waa rapaa yi doy mbay féete fii xam ne joxe rapaa bu baax mbay boo mbay aw ma fayam quoi kooku sama lépp la day sonn si man billaahi ma jóge an. est-ce que xam nga Milkzo. Milkzo seetaan naa ko gis naa ko bu baax seetaan naa ko bu baax. combat mujj bi diggante Bébé Xarañ ci arène nationale diggante Franc ak Bébé Saloum. seetaan naa combat bu ñu ko daanee fii Iba Mar bi dama koy daan du yàgg sax Milkzo ah. booy booy defuñ booy mënuñu bëre. xaw koo napp mais Milkzo da ngay wax rek di xool ko tamit da ko ñëmul wala la Milkzo dama ko bëgg a bëre ak moom man maa ko tanal sama bopp di ko wax chaque jour di ko wax chaque jour ne ko Milkzo a ma koy Milkzo ma ne ko Milkzo dama bëgg a bëre ak moom leer laa la amul doole parce que yàlla amul doole dafa xiif li ko caatu rëbës daal moo tax nga jàpp ne caatu rëbës dala koy abal bokkuñ sax bokkul sax du loolu sax avant caatu rëbës ma bëgg a bëre ak moom rek man daa fa ma teg sama bët bi de barki yàlla billaay daa fa ma teg sama bët bi ku soo paree gu nga ne Aliou Farfar pourquoi Aliou Farfar. Aliou Farfar même Aliou Farfar dama man dama déggoon dama tànn samay adversaire dama xam ne ñii laa a ma bëreel bu ñu sumee koo moo ko doole. ay ndaanaan ay ndaanaan bërekat nga may waxal ay ndaanaan bërekat ñoo xam seen général actuellement bokk na si xale yi gën a moo tax ma bëgg a ñoom xam naa yow xam da ma xamagul moo tax da ma xamagul mën nga ñëw bàyyi ma kenn mu ñoom dugal ma door xam nga gars yi maa di béggee sama doom day tintin maa koy béggee <laughs> maa ngi siyaar ñëpp Rebeuss ay fa nekk ay booy rek ñoo fa nekk yu bëgg làmb parce que yàlla ay booy ndaw même génération mën bëre lool di béggee sama doom day xam nga sama idole maa ngi koy béggee bu baax booy sama grand frère la waaw maa koy béggee su ma amee ci sonn te la comme man xam nga day jël xaalisam bëri di def si man xam nga sama mag la sama lépp la booy Mbombay maa koy béggee bu baax te ci man billaahi diggante sa diggante alliance Baldé alliance Baldé nga xam ne parce que mën naa la euh, xaj na laa ma wax dëgg mais ay ndaanaan la fi daan ay tàkk dafi ay tàkk saa ni bëri dafi quatre kaw ah, oh, <coughs> ah, alliance Baldé da cee dal rek parce que Serigne Saliou Mbacké billaahi alliance Baldé bu du bëree woon du xeex du bëree day day xeex rek daanu day gis rek daanu moo bëre lu leer laa lay wax. daa ko xeex ko ko bëri ko doole. bon Alliance Baldé boo ko ñu Alliance Baldé boo ñu tëjoon si néeg du ñu xon billaay bu ñu génnee nga ne nga bàyyi ko. mënul am doole dafa am ñoo xam ne am doole mooy Siteu bu ko rek booyee ma la mënuñu am doole buñ liggéeyee ba sonn duñu am doole lu leer laa lay wax. SBT Média la seen émission seeti mbër wax la ki ko adversaire di mu wax ay adversaire tàng la fi wax yu tàng jër ah, def digganteem ak Siteu bu Ngor ah, si ni ko waxee Siteu nee moom nee na la ah jamaat deuxième am Pape Thiam daan ko ah, muy loo xam si deux deux benn victoire ak benn match nul dégg nga adversaire yi ay adversaire jaar la ndax garab ci koo lay te am ñoom ay xale la a mayante xaalis mais mais mais mais à part nga bëggaat wala ñen ñi la ay fëgal bu ngor benn combat benn combat la def. combat bu ngoor. loolu wax de deux combat. benn combat la bëree fëgal benn combat la bëree jaay ñu sóob rek naan ay quatre combat ak cinq combat ñun ñëpp ma lay benn combat deux combat la ñu am wuñ ko man damay wax li am su ma fi fii xam am naa quatre combat quatre victoire mais amul sens man ñi ma bëreet laay wax xam nañ ma xam naa leen bu baax. xam nga. sama adversaire yi nga wax ni kuñ ci seet pare nga pour bëre moom. pare naa pour bëre ñoom. li ma leen di yóbbante xool leen wax ak ñoom loolu leen di yóbbante. li ma leen di yóbbante mooy mu ngi seen kaw xale la xam nga jël leen avance ñu bëree. ku ci jël sama avance da maa ragal man maa wax loolu ku ci sama avance da maa ragal jël leen